boobu moom addama mooy deret aw xaariju ji mu qubilil marati ci kanamu jigéen ala ci jamono yu wér min xëyri sababi wilaadatin ci lu sababu njureel wala ftidaadu nekkut bët ab ndaw deret ji nga xam ne dafay génn ci kanamu jigéen jigéen joo xam ne feebarut kon bu feebaree di génne deret joo xam ne feebaru ko waral loolu du mbërëg loolu feebar rek la du ko tee julli def li mu war def lépp waaye nag mu faj yi njuréelu waralu ko bu dee dafay am doom gis deret loolu gësin nañ koy tuddee nifaas danañ ci ñëw léegi nekkoon nii daf di jànq ñu joteeg moom deret génn deret yi nga xam ne jotee gi ñu joteeg moom moo tax mu génn kooku deretu bakkaara bi la loolu du mbërëk waaw daa génn yeneen deret yi nga xam ne mën naa génn ci kanamu jigéen te bokkut ak mbërëk mooy deretu feebar deretu njureel deretu ndaw ولونه كل رم أسود النيول أنا يعني نيول رك من أو أحمر ولا لقنق أو أصفر ولا زون بينا كنسي قدرة أك تك تك قدرة نك ما أي سفرة لخوا جل ما أي تنجنج إلى سواد جمت نيول لخوا زون زون قوام دفع من لراح نيول taarifu dana ko xam baatu nisaa yi ñenn ci jigéen ñi daanaka nga xam ne jigéen ci jot baax rek moo xam ne luy régal ak nan lay mel ak yu noonu mais nii mu ko jàngalee nag mën naa wane ne couleur bi mën naa wutee ci jigéen bi ak bii woo moom alaamatul mandarga la min alaamaati marati ci mandarga jot baax ak jigéen mba rek jigéen ju ko gis rek من غير واحد مكلف له جدنا باخ باي ما يخرج اللي وانا يا موخور وقد ذكرت ابن الاتباء دكتوري له نيالمبرك علامات ايماندرغ اخرى ينن يعرف درنكو خمي بها تيمو دكتوري واخنا نينن ماندرغ يو خمني بو درجي جيني رك تيغي خمي ندي مبرك له fa qaalu ñu ne innahu naka moom damun der la xeyru mutajallitin ngay wax nekkut bu dëgër bu way deret yoo xam ne dafay way fat lool mbërëg nag melul noonu masubun dafa ànd ak bi mu xaatin ci ay ratax-ratax mu xaat mooy lu mel ni ñu ndax maa baqaaya xalaayal xichaa yi dégg nga maa baqaaya ànd ak desiti xalaayal xichaa yi xalaay matière yi muuraay gi almuxaati bi aji ratax li raximi ñeel raxim bi raxim mooy xaw ma ndoxam jigéen lañ koy tuddee xaw ma waaye mooy loolu nga xam ni e, jigéen bi weer bu dee loolu mooy dem ba tasaaroo mu nekk régal loolu bu dajeeg ndoxam góor gi rek am ëmb ci rey juddoo loolu mooy raxim bi wala nuñ koy waxee lay wax ne der la joo xam ne xeeru mutajallitin formé wut masuubun dafa bi mu xaatin ci ñend xib wala ci lu ratax maa baqaaya xalaayal richaay ànd ak ndesitu matière muuraay al mu xaat yi gaa ji ratax le raximi ñeel ndoxam jigéen moom ëllëg bi tab tas na waaw loolu nga xam ne ni dafay libéré wu ci biiru jigéen <coughs> bu dajeeg ndoxam góor mi ëmb ñëw bu dajeeg fi ndoxam góor mi dafay ba toj nag muy regal loolu mooy raxim bi reegal boobu buy génn nag dafay am yu war a tax ndax la ko muuroon daf ci xaw a desaale matière yooyu waxta kon daa nekk kamiyatu doyoom xalilatan daaji néew régal lu tuuti da nekk comme dara ku gaañu mu sotteeku bu baax léegi mu ëppante nag ba mu xaat yéen dafay ratax fi awali xay di ci commencement régal bi buy door a day xaw a ratax su ma yekkoon topp mu nekk maa ilan daaji jàng lil xumrati jëm ci xonq su paree nga gis mu gën a commencé xonq su ma banaa topp mu fés allaw nu couleur ba xonq coor fii nihaayati xaydi ci mu jëng mbërëg bi bi waa ji jeex nag ci lay couleur bi feeñ am na ñu ko xamlee noonu waaye daal loo ko jàng-jàng jigéen ñi gën la ko xam ndax ñoom ñoo koy gis waxtu ibtidaa yi waxtu tàmbaleem kañ la maanaam ñaata at la jigéen di am bu gisee deret yooyu ñu jàppee ko régal ndax ku judd rek mën naa ko gis régal wala ku am juróomi at wala juróom benn at wala juróom ñaar wala foo mu am at yu muy am bu gisee deret ñu door ko mën a jàppee régal loolu lay jàngale mu ne waxtoom nag kama yara comme nu ko gisee jumhurul fuqaha yi mboolam borom xam-xam fiqi lañ gis mooy isa balaxat bu jotee alon sa jigéen ci san si nii na juróom-ñeenti at mooy waxtu tàmbali ma ba waxtu ibtidaay waxtu tàmbali ma ba mooy isa balaxat bu jotee alon sa jigéen ci san si nii na juróom-ñeenti at kama yara comme ni mu ko gisee jumhurul fuqahaa yi mbooloom borom xam-xam fiq yi ay lu mën a mu anal marata naka jigéen laa taxiidu du gis du gis mbërëg qabla an tabluxa njëkk muy jot xaala sinn bi la at jigéen balaa gis mbërëg foo mu am juróom-ñeenti at bu ko amagut bu deret génnee ci kanam yi bu leen ko jàppee mbërëg loolu moom leneen lan nañ dem hôpital ñu xool en tout cas borom xam-xam yi daal ne leen juróom-ñeenti at daal ci la jigéen di commencé gis régal nekkul na nag force bu amee juróom-ñeenti at rek da koy gis waaye du ko gis te amagul juróom lañ la bëgg a wax wa baadul fuqahaa yi ñenn ci borom xam-xam yi yaraa danañ gis anna taqdira sinil marati ne nattaleeb atab jigéen allati bi nga xam ne yëpp tadiwu dana commencé xayduhaa mbërëgam fii ci moom xaasum dafa jegoo lil biati ci bia man ko olof bu dégg olof gars yi yéen wax ngeen sama olof dama xóol waaye xam nga bii at tamit mooy rek barab bi ngay dund mooy bii a aju xaadi woon aju toroxlu la kon xaadi woon aju toroxlu la lil bii at ñeel fa muy dund am na ñu ne jigéen buy commencé gis mbërëg duñ ko takk ci juróom-ñeenti at kese nga foo mu mat ko nag moom waaye mën na koo am te du gis mbërëg ndax bii ab bi muy dund maanaam barab bi dund fal mantiqatu gox al baridatu bu sedd xayrul mantiqati bokkut ak gox al xaarati bu tàng wa xayrul mantiqati bokkut ak gox bu yem tàngut teddut yooyu yëpp dafay feeñ ci réeglu xale bu jigéen bi ونهار المقاوين والمجيخين والغالب لأبو في منطق في منطقة ناسس غخ العربية بيك العرب المعتدلة بأجي ديك دومو أم نعم، لأبو تجيجيني عربي موي أن الفتاة نكا جانك تحيل دفعي مبرك في سن ساري ستحصر تي أتب فكن يت أبي رابع تحصر ولا فكن ينت موي سنيري عربي بلا جيجين ديك سريكن أم تريزان بكتوزان loolu mooy li ëpp foofu kon gox bu nekk rek jigéen ña am nañ at yoo xam ne ñaari rek ci lañuy baaxoo mën na ëpp juróom-ñeenti at mu ne waaye walakin waaye nag isa xaadat bu mbërëgee alfataatu jànq xabla xaada sinni njëkk bi la at rajaanaa dañuy dellu ila sinni lazi ci at bi ne qaddarahu na ko alfuqahaa borom xam-xam yi woo waloolu tison si mooy juróom-ñeenti at wa xakam naa ñu bi anna damma ne deret allazi bi nga xam ne nazala wàcc na alayha ci ndaw si xoo moom dammu xaydin deretu mbërëg la bu fekkee réew mi nga nekk jigéen ñi balaa ñoo gis régal foo ñu am fukki at ak ñaar ki am fukki at gis régal neel régal la ndax borom xam xam juróom-ñeenti at lañu wax ki am juróom-ñeenti at gis ko neel régal la di la waa réew mi duñ koy gis ci at yooyu waaye daal koo gis te juróom-ñeenti at amul moom loolu moom feebar la kon fi borom xam-xam yi tënk commencement wu gis régal mooy juróom-ñeenti at waaye dëkk bi ngay dund mën naa tax nga ëpp juróom-ñeenti at te gisoo régal loolu lu normal la euh, waaye nag suñ ko su ko amee ñu ko gis avant euh, aadaay jigéen dëkk boobu ñoom ñu gis ko régal bu dee mat la na juróom-ñeenti at rek jàppal na régal régal nag signe la buy wane nit ki mën na ëmb hmm? moom laa doon wax ne tubaab yi léegi dañu bañ teel a maye jigéen te yenn ci borom xam-xam yi di leen ci jàppale ah allahu alam yàlla rek xam waaye yonentu daal takkan soxna soo xam ne ndaw la moom loolu moom luñ xam la yonent bi nga ne mooy yi nag bu fekkee soxna soo xam mën naa sëy yàlla it muy bind eh, mën ngaa ëmb rek mooy mën ngaa am doom <laughs> loolu daal lay tekki ku mënul am doom nag loolu feebar la yeneen kooku mag sax mën na ko mën na ko amee waaye daal bu yàlla defee ne kii mën naa ëmb mooy ne mën naa mucc ci jàmm yàlla mi dogal ëmb ba mooy dogal xale ba mën a judd ci jàmm bu fekkee nag yeneen i maslaha yoo xam ne nii du lor jigéen ñi du lor góor ñi moo tax ñuy aaye nag teeru sëy gi yàlla alam waaye nag fekk ñu xam maslaha yooyu man daal damay wax ne bu farantu teerul moom sëy waru teer waaye mën ngeen a farantu ni mu leen neexee waaye nag sëy moom mu leen ko def te nekk magay gu leen loolu caaxaan rek laa ko jàppee هذا لي ويسن يكون هناك فوب سن أت محدود بن لمتة لنهاية الحياة دي تجي هن برك برك كم اسمع أم جرم ينتهى الله فم يمنك أمود لمت أم نبرم كم كم نيجو لمتة فقد ذهب دمنا فريقون أبكر من الفقهاء تبرم كم كمي إلى أن نون مم ينتهي لفاجع في سن سبعين سي أتم جرم يعرف كي أت ñu ne jigéen bu amee soixante dix ans rek régal am dagg na nu mu gisee ci loolu nag ay borom xam-xam ñoo wax ci seen kem seen góorgóorlu waaye amuñ ci tegtal wa zahaba dem na fariqun ab kuréel ilal qawli ci wax bi dawaami ci saxam ila axiri umri ba ci mujj ak dund am na ñu ne fekk nit kaa ngi dund rek mën naa gis régal wal muhawalu la ñuy sukkandikoo fi ixtilaafihim seen wutee ala tajriba mooy ci nattu wala aadati ak aada tajriba mooy expérience bi na xam ne ni am nañ ko ci loolu nag jigéen ñee ko xam bu dee jigéeni dëkk bi gis nañ ni juróom-ñaar fukki at ku ko am dootoo gis te régal dëkk xam ne ñoom foofu la seen waxtu régal yem waaw waaye nag li gën a wóor mooy ku ko rombit ah mu jàpp ne mën naa nekk rek ndax am na ci borom mën naa ñëw kon daal daanaka waxtu régal daal nga jàpp ne amul fu yem daal wala si nekkul woon naa ko foofu xadiisun xadiis yu xadiidu buy limité nihaayati inqitaa yi jeex ak dogom xadiis buy ñëw naan régal fii la am amul moom. waa aqalu muddati xaydi li gën a néew ci diirab régal nag indal Maalik ci Maalik duf'atun waahidatun mooy benn janin benn janin janin maanaam benn toq Maalik nee na bu dee benn toq dagg rek régal la na sangu waaye nag. bu doon dañ koo fase loolu wala du ko jàppee edda bu du ko jàppee edda wa indal axnaafi ci waa abu xanifa ñoom ñu ne salaatul ñetti fan la abu li ñëw bu dee mutul ñetti fan rek du régal régal moom foo mu foo ñetti fan wa indal shafii ci waa wal wala xanaabila ahmad ibn hanbal ñu bis la wa laylatun ak guddi shafii Ahmad ibn Hanbal ne naa foo mu mat bis kon deret ji génn ndax dañ koy jàppee régal nga xam ne bu doon edda dana ko compté waale wala du ko jàppee bu doon edda du ak ndax dana jàpp muy sangoom déet Maalik nga ci gën a yomb rek moom buy toq rek yow nga sangu ji waaye nag booy bu dee kuy eddawu la loolu du ko compté xam naa day sàmmante wax ñeneen ñi mat bis. nga doon ko compte ci edda moom mu fekk ci saafiya waaye nag noppal na la ci wàllu sangu bi ak ci wàllu bàyyi julli gi bu dee ci saafiya ak xanaabila fa mu mat bis kon bu deret di ñëwee da ngay waaye bu dee avant bis la dagg jëru sax ngay sangu te ñàkkoon julli da ko julliwaat ndax loolu du regal ci waa boo andi fa ñetti fan la kon bu deret di ñëwee da nga bàyyi julli waaye avant ñetti fan la dagg jëru sangu ndax du regal waaye da nga baamuwaat julli gi loolu mooy njariñu wute gi wa zaxaba dem na kasiir ñu bëri min al fuqahaa yi ci borom xam-xam yi ilaa anna al muawala na lañ sukkandiku alay ci moom fii muddatil xaydi ci diir mbërëg huwa moom aadatul marati mooy aadaa jigéen ci فإن كان لم يكن عادتها آدم ثلاثة أيام يتفن مثلا في مثال ولم ينقطع تدقق أدم مدرج بعدها جنام فإنها نكمهم taxtasilu day sangu fii mu dut xëy nag fii li wax mooy la ci gën a bëri lañ wax fee la ci gën a tuuti lañ doon wax nga xam mu mat ko bu dee régal fii nag la ci gën a bëri moom moom la jàngale mooy mooy aadaam bu dee aadaay nit ki xam nga jigéen ju nekk buy gis régal am na at am na fan yu mu koy gis bu dee aadaam ñetti fan la moo am ñetti fan daggut day sangu wóotu su la julli xam moom defu sax li maali waxee dañ ci yokkaat ñetti fan <laughs> eh, loolu mooy njëriñu wuteeg borom xam-xam na ñetti fan rek yow sangul julli maanaam sa ñetti fan noonu dara juróom mën a ñetti fan daggul sangul julli juróomi fan nga ko daan gis te nga juróomi fan daggul feebar la sangul te julli fay naa nag moom tax te day sangu wóotu su julli kama jaakum nu mu dikkee zaariku loolu عن رسول الله جلس ينتهي ربي صلى الله عليه وسلم نون لكو ينتهي بي جانجلي دا بي سنكوتا جلي نلقى حديث بن نمي من فان أم سلمة جلن أم سلمة رضي الله عنها ينلقى يالا كرم أنا استفتت لا لاجنا رسول الله ينتهي ربي صلى الله عليه وسلم في امرأة سجين تحراقو ويقول لك حراق يحريق كان مبني لمجهول دفعي تور الدم درت ji damma deret jigéen joo xam ne day génne deret rek la umu salama laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam luy atteem moom deretam du dagg nga xaal yonent ne li tanzur na xool qadra layaal li mu guddi yi wala ayaami ak bëccëg yi allati yi nga xam ne kaana nekkoon na taxiiduhunna di mbërëg wa qaddarahu wa qaddarahunna mu nattale leen min shahri ci weer wi fa tadaw mu bàyyi asalaata julli su la tax su la tax tasil topp na sangu wala tas tasfir na nuuxu nuuxu mooy na jël dara dugal ko ci awra ba su ma tusali topp mu julli. mu salama def na yonent bi koo xam ne deretam deretu reegalam day toq rek du dagg ba mukk yonent ne dafay xool fan yi mu ko daan gis mu nattale leen bu dee juróomi fan la ko doon nga xam ne moom sag la trente rek day gis wala sag la vingt huit wala sag la sag la vingt neuf te juróomi fan la koy gis sag la vingt neuf rek waxtu yi naan régal bu ñëwee bu ñëwee na arrêté maanaam dafay nattal rek ne normalement heure bii moom war naa fekk mu ñëw mu arrêté julli ba juróomi fan yi jeex mu sangutu julli kon loolu may wane war a sangu waroo nag na jël dara dugal ci awra ba ngir bañ dara bi di toq loolu masaay bi jàngale woon nañ ko loolu moom ñëpp ci dëppoo sax moom far lii moo lay jàngal ku amee deretu feebar lan moy atem ko amé deretu febar moy deretu jorngel koku du génn ñetti xaal yi ben deretu febar ak deretu mbërëg bi bokkuñ couleur xamé na ko ko amul problème saa yu mbërëg mi ñëw rek mu bayyi julli mu mbërëg mi jeexee mu gis deretu febar bi sangu julli loolu mooy atem ñaareel bi moy ko xamné xamé wu deretu febar bi ak deretu mbërëg mi ñoom ñaar ñoo bokk même couleur kooku mooy li mooy def laaj yonentu maam li yonentu tontu Ummu Salama rek mooy weer wu nekk day xool fan yi mu doon gis reegal bu dee juróomi fan la xam na moom kañ la daan ñëw kañ la daan jeex fan yi reegal mi bu ñëwee rek mu bàyyi julli bu jeexee mu tu julli mooy koo xam ne xàmmewul deretu reegal bi ak deretu ak deretu mbërëg bi fajuñ ko daan gis rek lay xol bu jeexee mu sangutu julli mom la hadith bi andi bu dee nak dafa fàtte fan ko daan gis nak mom xamuko na to rek juróom-ñaari fan weer bu nek mo ci gëna a daal am ñu ne ben fan lay to weer bu nek am ñu ne ñaari fan bu jeexee mu sang commencé julli jeexna na mom moy atep atteb jigéen kon bu fekke mom léeg-léeg da ko doon gis ñett léeg mu gis ko ñeent ah nay ñeent moo gën a wóor nga am na ngànt loolu mooy àtteeb jigéen ju amee régal wa tas jigéen ju amee deretu feebar wa maanaa tas tas firu mooy te daw na teg xirxatan sagar ala farjaa ca awraam li tam naa ngir mu tere biyaa ci moom nuzula dem mi wàcc ak na jël sagar dugal ko ci biir awra bi ndax bañ deret ji di toq loolu jàngoon nañ ko ci ba ñuy jàng uddu ul maasuur ne mazahib dañoo wax ne ku amee deret yoo xam ne feebar la wala boobu muy génn sobe soo xam ne feebar la na def ci awraam dara luy tax loolu du toq ci suuf waxtu bu nekk mu jàppal ko loolu moo doon yeneen mazahib Maalik nag moom sartaalul waxtu mu nekk nga jàppal ko waaye yeneen mazaay bi nag lañ wax am nañ ci xadis na am naa di ci wax ñu def ne waxtu mu nekk na nga jàpp kon nga jëfandikoo ko mooy di gën a wóor ahkaamu nifaasi attey gësin an nifaasu gësin huwa moom addam mooy deret alxaariju bu génn min quburil marati ci kanamu jigéen bi sababil wilaadati si sababu njureel gësin nag mooy deret ji nga xam ne dafay génn ci kanamu jigéen waaye am doom moo koy waral wayn kaane dina nekk ne almawludu kañ jur siqtan di mbuurt mooy koo xam ne matut wala mu judd rek damaat loolu lépp gësin la daal waaw muddatu diiram diiram gësin nag na ngeen ko jàngoon ci téere Maaliki yi ak moom ni nga ko jàngalee du benn sax li ci gën a yéeme moom daf cee yaraa dana gis al fuqaha bu borom xam-xam ana aqala muddati nifaasi ne li gën a néew ci diirab gësin laxsatun benn géndeeku kon nit mën naa am doom dina ji toq rek daggaat du tee dafay fa lawin xataa bu daggoon addamu deret baadaha gannaaw boobu aw wala dat wala mu jur doom sax mais xëy na ci lu dul deret tax tasul day sangu watu salli tam julli deret ji bu daggee lu mu gàtt gàtt day sangu julli bu dee dafa am doom gisul deret sax dafay sangu ndax am doom gi rek mooy waral sanguy yi bàyyil xel bu fekkee nag doom ji dafa ànd ak deret dafay xaar ba deret ji dagg mu door sangu bu fekkee deret ji dagg na wala mu am doom. dégg nga deret ji dafa dagg wala mu am doom amul deret mu sangutu julli fenn at lem gis na damma deret baada zalika gannaaw loolu tantaziru dafay xaaraat du julli xataa yan xataa ba loolu dagg ay lu mën a mu tatruku dafay bàyyi asalaatu julli fi muddati nuzul yi ci diir ba deret ji di wàcc waaye jàng loolu na fekk diggante bi motul fukki fan ak juróom Eh, bu dara ji daggee toog lu mat fukki fan ak juróom mu ñëwaat loolu mbërëg mu bees la bu ñëwaatee avant fukki fan ak juróom lay continuer rek ba mu dagg moo tax tasiru mu sangu inda indal xitaan yi bu daggee wootu sa mu julli waaye waak saru muddati li gën a bëri ci diiram nag arbaon na yow man ñeent fukki fan la fan yi mu ko war a gis nag moom dara jël du ëpp ñeent fukki fan kon bu ko gisee fukki fan mu dagg bu ñëwaatee na xam ne fanweeri fan rek moo ko dese ndax deretu gësin ëpp ñeen fukki fan xam nga ne la nga jàngoon ci lax dere fa fukki fan waaye moom ñeen fan la jàngale ne moo gën a bari ci fan yi jigéen di gis deretu gësin fa in nazara nem wàcc na alayaa ci moom addamu deret baadal arbaina gannaaw ñeen fukki fan yi laa taxtabirhu bu ko jàppee damma nifaasin muy deretu gësin jigéen bu amee quarante jours di gis deret loolu bu ko jàppee gisin ba li fi nekk te daw teg ala farjiha wala boog laa tax tabirhu du ko jàppee moom jigéen ji dama ni faasin deretu gisin ba li fi nekk te daw day teg ala farjiha ci awraam xirxatan sagar tax jusu dana teree bihaa si sagar jooju dama deret ja otu sali itam julli mu ne sangu julli wa hada lii huwa moom mazhabu aksari ahli almi mooy ngiram ñu ëpp ci ñooñ xam-xam fan ummu salama jëlee nañ ci ummu salama radiallahu anha yaa na ko yàlla gërëm xaalat mu ne kaana nekkoon na annufasaa way gësin yi tajlisu di toog ala ahdi rasulillahi si jamono yonente yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam arbaina yowman ñeen fukki fan jigéen ñi amee am doom 40 jours lañ lan tok ci jamono yonent bi yo xamni duñ julli bu fekkee seen deret ji continué la ak ñoom rawaa son hadith bu abu dawud ak tirmisi wa qala wa at ak tirmisi hadha al-hadith ginna hadith bi ni qad ajmaa dëppoo na al-ilm borom xam-xam yo من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم wa taabiina ak ña topp saxaaba ya wa man baadoom ak ñi ñëw gannaaw taabiine yi ñoom ñëpp dëppoo nañ ala ana nufasa ne ñi ame gësin te doon nañ bàyyi asalaatu julli arbaya yowman ñeen fukki fan illa an lu moo ñu gis atuhra laab qabla zalika njëkk ñeen fukki fan yi fa innaha naka jigéen jooju tax tasiru day sangu watu sa liitam julli bu dee laab na avant ñeen fukki fan mais bu deret ji continué ak moom nag quarante jours la yem fa in raat nam gis na adam ma deret ji baadal arbaina gannaaw quarante jours fa in aksara ahli almi nak ñu ëpp ci borom xam-xam yi xaaroo wax nañ ne laa tadaw du bàyyi asalaatu julli baada gannaaw loolu bu ma tee ñeent fukki fan deret ji continué rek na sangu du julli xam ne loolu moom euh, feebar la maa la nga xam ne yaxrumu dana xaraam alal xaaidi ci aji mbërëg wan nu fasa ak ñi amee gësin jàngal na lenn ci wàllu mbërëg ak gësin mu ngi jàngale nag li nga xam ne dafa xaraam ci ko amee mbërëg ak li nga xam ne dafa xaraam ci ko amee gësin gësin mooy deretu jureel mu ne yaxrumu dana xaraam alal xaayidi ci ko amee mbërëg fasaay ak amee gësin maa yaxrumu dana xaraam alal junubi ci janaaba ko amee mbërëg ak gësin lañ koy aaye mooy la ñuy aaye amee janaaba ñoo bokk kon falaatu salli duñ julli an nga ko firee wala tatuufu duñ wër bil bayti ca Kaaba ga wala tamkusu duñ sax fil masjid ca jàkka ja wala taqraw duñ jàng alquran alquran wala tamusa duñ laal almusafa kaamil janaaba mooy ku sëy wala ku génnee mën yu mbërëg nag ak gësin moom lañ jàng léegi ci bunt bi weesu ko amee mbërëg ak gësin wala ko janaaba ñoom ñëpp a yem duñ ñu wër kaaba ga duñ dugg ci jàkka toog fa waaye mën nañ faa romb ko amee janaaba nag jàngoon nañ ci gannaaw ne mën naa romb jàkk ko amee mbërëg dañ koo xiyaas ci ko amee janaaba ne mën naa romb jàkk moom it duñ jàngal Qur'an ngiram Maalik nee na ko amee mbërëg wala gisin mën naa jàngal Qur'an waaye moom nee na daal loolu mënul nekk duñ laal kaamil yëpp mu wax moom noonu la ko ngir mi jàngalee waaye jàngal xuraan moom maaliki yi moom may nañ ko ko ne mën na koo jàng moom ko amee mbërëg wala gisin amma ko amee janaaba mënul jàngal xuraan waaye juus dana dagan laa ñeel ko an tamu romb romb bil masjid si jàkk jigéen ju amee mbërëg mën naa romb jàkk isaalam tëjit bu amut tariqan yoon xëyrahu bu dul jàkk ba mën naa romb li xadaay xaajateen ngir faj soxlaam qiyaasan ñi qiyaas ko alal junubi ci ko amee janaaba ne comme que may nañ ko amee janaaba mu mën a romb jàkka bu fekkee foofu rek la a jaar ah ko amee mbërëg tamit bu dee jàkka ji rek mooy yoonam pour mu mën a dem mën naa romb ci jàkka ja loolu dara nekkut nga dee gis ne bu mën a jaar nag fu dul jàkka ja mu bañ a dugg ci jàkka ja moo gën bi sarti an takkoona si sartaay mu nekk sax mutaxafizatan di aji moytandiku tamanu nga xam ne dana wóolu adama taqaaturi dammi ñàkk a ak deret ja fii ca jàkk ja buñ ne ko mën naa romb jàkk dafay fekk moom sàmm na bu boppam sàmm goo xam ni benn deret du toq ci jàkk ja waaye bu dee bu fa jaaree dana taqal jàkk ja nag kooku dafay xaraam mu jaar ci jàkk ja waxat taqaddama jiitu na fi l xadis allazi bi nga xam ne رواه نتلنك البخاري ومسلم أن النبي ننتبه صلى الله عليه وسلم قبل الله وعلى عليه وسلم وسلم تذلك مسلم قد أمر ديغلنا عائشة عائشة رضي الله عنه الله يلا على تند عائشة موم أن تناوله مجت لك شيئا درا كان نكون في المسجد سجاكجا فقالت نيا عائشة نكو إني لك من حائد أجي مبرقلا fa xaala yonentu wax laa ñeel ko ne ko inna xaydataki naka sa mbërëg bi lay sa nekkul fii yeddak fii ki si sa loxo bi ne ko sa loxo bi amul mbërëg kon loxo bi mën naa dugg jàkk ja waaye waxut ko jëmb ji mën naa dugg jàkk ja loxo bi jëmm ji bu duggee barab bi ne am sobe duggaale na waaye loxo bi kese moom barab bu am sobe duggaale wut moo tax am na si borom xam-xam ñu ne déedéet ñi mënu romb ci jàkk ja mënu faa dugg mënu faa romb loolu ñëw na ci téere Maalik yi waaye moom moom daf ne mën naa romb ci jàkk ja mais dugg fa toog fa lañ koy aaye ci bu ngànt amee wa jawwaza daganal na nag baada fuqahaa il maalikee ñenn ci borom xam-xami Maalik yi wa baada zaahiree ak ñenn ci ngiram zaahiree yi ngërëm zaahira ñom ñom ñom ñom ñoy yi nga xamni ñom la fën ci taxi ba lañu wax ñom duñ fa nek di taawi la andi seen deg deg ak nangam zaahira wax ji rek non lañ koy noonu lañ koy jàppe ñom daga na lañ la ñeel jigen ji qira'atul quran jangal quran li annaha ndax mom denga nga muxdaratun kuñ nangul ngant la laa tastatiw du attan rafa dammi yëkkati daraja wala tuxuru caageen sangu minu ci moom kooku muxdar la ñu jigéen ju amee mbërëg xam nga ne mënu sangu ji mënu dindi daraja kon kooku am na ngant moo tax mën naa jàng alquran ndax ci darura la nekk maanaam deret jooju ngàntale ci ko bi xilaafil junubi wutee جنابه amee janaaba janaaba mooy ku sëy wala ku amee ku génne mën yu kooku xayru muxdar ndax fay noo nag moom yestatu dana attan an yar faamu yëkkati janaabatu janaba mata sha sa saa nexe ko neexee janaba sa janaaba nexe yu mu sangu kon duñ ko may mu jàngal qur'an ta sangu waaye ku amee mba rek ah du saa yu ko neexee mu dagg kat dem sangu ji kon jamono ji mu amee mba rek mën naa jàngal Alxuraan bu dee ci daara ji la nekk sax moom may nañ ko mu laal kaamil bu far waaw kon jigéen ñi nga xam ne dañuy xaw a magee dem ci daara di jàng buñ def saa yuñ amee saa yuñ gisee mbaax rek duñ jàng ba mbaax ma jeex ñu door a dellu si ci daar ja loolu mën naa tardé seenam njàng islam may leen ñu laal kaamil bi may na leen ñu jàngal quran ci jamono mbërëg waaye nag borom téere bi moom def na déedéet wala sow li gën a wér annaha naka mbërëg ak gësin kal junubi comme ku amee janaaba annaha naka ku amee mbërëg junubi comme ku janaaba laa yajuusu du dagan laa ñeel ko an yaqra mu jàng min alquraan ci alquraan ci an dara bi lisaaniha ci làmbañam ala sabili tilaawati ci yoonu jàng tilaawa moy ku jàng ngir am tiyaaba jigéen ju amee mbërëg mu ne mënu ko même nañ ko mu nekk kuy jàng ci daara ja kon jàngal quraan am wute nañ ci nee na li gën a wér mooy mënul jàngal amma an taqara waaye mu jàngal ayata benn aaya wa naxwa ak yu mel ni benn aaya ala sabili zikri ci yoonu zikkar di tudd yàlla awit doa wala mu jublu ci ñaan aw istidlaal wala tegtal kon ndeke ndeke alquran dañ ko jàng fekk ñaan yàlla la hmm, wala tegtalu muy muy muy xadis moo muy atte ne laaya ji la ko yàlla wax ak yu demee noonu fa zalika loolu jaayizun la dagan la laa ñeel ko moom ko amee mbërëg wala gësin wala junubi ak ko amee janaaba alal mashhuri boo sukkandikoo ci wax ji gën a siiw min aqwalil fuqahaa yi ci waxu borom xam-xam yi wa qad ittafaqa dëppoo na nag al fuqahaa borom xam-xam yi fiq yëpp ala jawaazi qiraati al quran yi ci dagan ak jàng al quran bil qalbi ci xol lil xaayidi ñeel ko amee mbërëk wan nufasaay ak ko amee gësin wal junubi ak ko amee janaaba lil istizkaari ngir nafat wa maxaafati nisyaani ak ragal fàtte jàngal xuraan ci sa xel kooku moom ku nekk ci duus sax mën na ko ñëpp man nañ ko kon boo amee janaaba bëgg nafat pour ba a fàtte na ko jàng ci xelam loolu moom mayee nañ ko waaye làmmeñ lañ ko aaya kon daal jàppal ne jàngal xuraan aaya nañ ko ko amee janaaba ko amee mbërëg wutee nañ ci wala gësin ndax mën na ko jàngam déet maaliki yi ñenn ci maaliki yi ñoo ko daganal ak ñenn ci zaahiri yi ñi des xaraamal ko wa yaxrumu dana xaraamal la ay di cuk amee mbërëk wanu fasaaya ko amee ziyaadatan lañ yokk alama ma yaxrumu amee janaaba si ñaari mbir am na yeneen ñaari mbir yoo xam ne nii xaraam na ci ko amee mbërëk ak gësin waaye xaraamul ci amee janaab bu si njëkk asawmu mooy xoor xam nga génne mën nii moom teewutu woor nit moo tax sax dañuy góor bu amewoon janaaba ci guddi gi mu sëy wala mu génn mën yu fajar jot sanguwut mën naa yéene woor maanaam mën naa woor bis boobu fekkee mu nga amee janaaba it ci waxtu yéene mën naa yéene gi sangu gi pour julli rek la loolu waral ko ba digg bëccëg mu tëdd nelaw gént génn mën yu dara nekkul ci dafay sangu rek continuer kooram koor gi yàquwut du ko fay kon ko amee janaaba mën naa woor waaye ko amee mbërëg wala gisin mënul woor fay daa xaatat na mbërëg na aw nafasat wala mu wasin fii na xaari ramadaana ci bëccëg weeru koor wasin mooy mu am doom walaw qabla dégg nga sëñ ëpp na tuuti qabla al xurub bi dontu njëkk jant bi di sola bi laxasatin ci benn gendeeku bu wooroon ba mu des benn minute moo des jant bi so mu gis mbërëg wala gisin battale yàqu na soomu waa kooram waje ba war na aliyaa ci moom xaddaa zalika yoomi fay boobu bis bu mu ne dafa yomb nag na fay rek <laughs> woor woor woor ba mu des benn minute wala ñaari minute wala dix minutes mu gis régalam ay woon na fay bis boobu bu mu ne man daanaka dogoon naa du ko fay déedéet na fay rek wala mu ne xaaral ma gëm mu continuer déedéet na dagg fay wala xaatat diram bërëg na aw nafasat wala mu wasin fi awali yow mi ci njëlbenn bis bi aw nisfihi wala ci genn wàllu bis bi jaasa dagan na an taakula mu lekk wa tasraba mu naan bu doon fajar dafa jot rek régal mi ñëw na lekk naan duñ ko wax ne ko foofu mu continuer bis bi xoor ko déedéet day lekk naan wala yanbaghi du jaadu laha ñeel ko mu waasalatu saw mu waasalatu saw mi continuer xoor ga continuer xoor gi daganut moom lay yu fii du ko jëriñ dara te sax aay ko. laakin waaye nag yustahabu sopp nañ laha ñeel jigéen ji xoorul ngir mbërëg a gësin ak lu mu mën a doon daal ku xoorul sopp nañ ci moom an tastatira mu nëbbatu mel naas ci inda tanaawuri ma jamono bi muy lekk la nga xam ne yuftiru dana dog dana ko dogloo siyaanatan ngir wëttu li xormati shahri ñeel xormaay weer wi almafruudi buñ farataal sawmoo wooram ala kulli mukallafin ci bépp mukallaf woo moom mooy shahru ramadaana woor weeru koor almuazzam buñ màggal almuazzam mi buñ màggal weeru koor képp koo xam ne may nañ la nga dagg boo daggee ci weer yi lekk gëg naan gi da ko nëbb moo tax ñàkk mbañum rus la ak xotti xormaay weeru koor bëccëg weeru nga téye sa lekk di lekk ci kanam nit ñi même bu fekkee xoor warul la loolu xotti xormaay weeru koor la da ngay lekk rawatina nag magam jëmm boo xam ni mën naa xoor dara jotu ko bëccëgu weeru koor muy lekk ci mbedd yi lekk ci mbedd moom sax moom dafa far ñaaw ak lu mën a xew waaye léeg-léegi weeru koor dafay jot kat nga gis ñoo xam ne nii ñu ngay lekk ka naan lu suñ ca dara restaurant yi ubbi ñuy jënd di lekk di naan lu suñ ci dara ci bëccëgu weeru koor loolu dama ne même bu dee xoor warul leen sax daf nañ lu ñaaw والدليل lay tegtal ala anna xaayidan aji mbërëg wa nufasa ak ko amee gësin laa tasuumu du xoor fi xaalati nuzuli dammi ci jamono ba deret di wàcc mooy maa rawaahu la nettal na ko al buxaari yi buxaari lay wane ne ko amee mbërëg ak gësin duñu xoor mooy xadisu buxaari bii bismillah tafaddal ya cheikh اك مسلم حديث البخاري مسلم انا ابي سعيد الخدري جلك ابو سعيد الخدري رضي الله عنه يا غرام قال من خرج جن رسول الله ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم في ادحى في تبسكي او فترين ولا كرت يمل لي نك كينت الحديث بمور خم لان لا تي لان لا نيتري ينون تو دا فا ген ولا تبسكي تي اب جولي دال ilal musalla jëm ci juleekaay ba fa mara mu romb ala nisaay ci jigéen ñi fa xaala mu wax leen lii xam nga léeg-léegi ngay fàttali waaye wax ko loo xam ne day niru xas ko mais loolu baax na moo gën nga bokk mu yàlla dal ci kawam yonentu nag li def jigéen ñi mën na leen découragé waaye nag mënul ñàkk fa xaala mooy leen yaa masara nisaa yi yéen mboolam jigéen ñi te sa dax na saraxa leen bu baax kat parce sarax dafay fay bàkkaar te nii nag man ay tukkun na gis naa leen aksara ahli naari ngeen ëpp ci waa safara safara yéen a fa kon dee leen saraxe pour mucc safara soosu xam nga lii ko wax mu tiit fa xul nañu ne ko li ma lu tax yaa rasulallah yonent yàlla bi lu ñu ëpp safara xaala mu ne ñaar ñii ñaari yi ñee kon ñaar yi kuy jigeen ku ne bàyyi ci xel waaye góor it na ci bàyyi xel ndax war a xam ne ñaar yi jikkoy jigéen la waaye waru nekk jikkoy góor maanaam jullit bu ne war naa jikko yi waaye rawatina góor dafa yoo xam ni yëfu jigéen la mooy tak suur na da ngeen di bëril yonent ne da ngeen di bëril al laana xaste laana mooy rëbb waaye lañ ci na moom mooy saaga wax ju ñaaw yàq der xaste jigéen la fekk baax moo tax góor bu bëri xuloo mën a werante mën a wax wax ju ñaaw dañ naan ko yow comme jigéen la ma jigéen la yore wa takfurna da ngeen di weddi al ashira njëkk ak jëkkër wa takfurna da ngeen di weddi al ashira mooy la leen seen jëkkër yi di def defal ci lu baax da mel ni ku ko ku ko yëgut kon bu jigéen ñi xeeb ñaar yi jigéen bu ñaawee làmbañam na xoolaat bu xam parce que ñaaw làmmañ ci lu tax jigéen ñu bëri dugg safara ci la bokk li tax jigéen ñu bëri safara ñaaw làmmañ ci la bokk lu ñaaw lu ne nga mën koo wax te ñu ci bari sax dañuy sos rek maanaam moom bu ñu xasee mer moom wala ñu bëgg a wax luñ lu ñaaw luñ xalaat rek lañ ko wax ñoom dëgg la am dëgg seen yoon nekku ci nu mu gën a ñaawee rek loolu mooy xulóob jigéen na ñaaw rek maanaam maanaam moom buy xuloog nit moom sos ak yooyu yëpp xara garaawut na ñaaw rek <laughs> loolu leen dugal safar ñaareel mooy jigéen mën nga ko defal lu baax lu ne bu la meree ne musu musu ko defal lu baax suñ kontaanee daal mën nañoo gis yu baax yi waaye buñ meree yaay gën a bon ci àddina bi yaay góor gi gën a xées te pourtant lu baax lu ne defal nga leen ko loolu mooy weddi njekk baaxut ji koy baadoora la bokk ñaar yi ñoo dugal jigéen ñi safar kon ñaar bu nekkee ci góor it na xam ne yore na meloom ñooñ safara góor gu ñaaw làmmañ mën a saaga mën a xast ba nit ñi dañuy daw sa wax moom ndax kat yu ñaaw yi nga xam ni dana ko teg seen der bi nga xam ne duñ koo mën a delloo sax na xam ne kooku jikkoy jigéen la yore saagakat loolu ndam waaye nit koo xam ne teraanga goo ko defal mu fàtte ko yore na jikkooy ñooñ safara waaw na teg si ne maa raaytu gisuma min naaqisaati aqlin ci ñu gàtt xel wa diinin ak diine azhaba ñu gën a mën a yóbbu li lubbi rajuli ñeel xelu góor alxaasimi bu ñaw maanaam bu muus min na ci ku mel ni kenn ci yéen suñu mel ni kenn ci mu ne ma gis ku gàtt xel ak diine waaye lu xel mi gàtt gàtt lu diine ji gàtt gàtt mën naa yóbbaale góor gu am xel mën na ko def loolu mu def mu dugal ci lu dugg wala daal mu am faiblesse ci kanamam ci lu mel ni jigéen borom xel mu gàtt diine ju gàtt mën a jaxase góor gu xam xel gu muus mu ne mosuma see gis lu mel ni jigéen sallallahu alayhi wa sallam xam nga ko borom xel mu rëy borom xel mu rëy moo ko mën a nax waaye jigéen moom ci xelam mu gàtt moom lay naxee góor goo xam ni ko am xel la xanaa loolu mooy xam naa nax gi waaye nag nu ma ko mënu ñàkk def xul nañu ne ko maa nuqsaana aqli naa lan mooy suñu xel mu gàtt mi wa diine naa ak suñu diine bi yaa rasulallah yonent ci yàlla bi xel mu gàtt mi ak diine ju gàtt ji loo ci namm xaala mu ne alaysa ndax nekku shahadatal mar'ati seedeeb jigéen mis la nisfi shahadati rajuli comme genn wàllu seedeeb góor ñaari jigéen mooy tolloog benn góor xool nañu ne ko balaa kay xaala mu ne fasaare ko loolu min nuqsaani àqal yi nag ñu bokk seen xel yu gàtt yi seen xel yi metoon ni xelu góor kenn kon benn jigéen day mat seede ñaari jigéen mat seede waaye ñaari jigéen mooy tolloog benn góor ci seede alay sa ko isa xaadat bu mbërëgee lam tu sali du julli waram tasumi du woor xol nañu ne ko balaa ake xaala mu ne fa zaalik loolu nuqsaanu diine hin na mooy seen diine loolu mooy wàññe diine matut ndax ku am wàññeeku kon hadis bi da ci jàngee ne ku am mbërëg gësin du xoor du julli waaw hadis bi dana jàngal loolu waaye dana jàngale nit nit mën naa xel muus lool baax lool jigéen dugal ko ci xaw a manqué tax ñu jara moytu man daala ma jàngee yàlla naan yaa ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu maa ahalla llaahu laka tabtaxi mardaat azwaajika laa xam ne góor ñi mucc bëriwuñ de yow yonent biiru lu tax ngay xaraamal li yàlla ci yow ndax sàkku sa ngërmaande jabar laa xam ne góor ñi mucc bëriwuñ والدليل اللي تكتل هذا أن الحائد أن يكون أمن برك والنفس أكون قسم تقديد في في أسوم كور ولا يقديد في أسرة جلي كامن برك قسم لم يكور دنكو في ولم يكو جلي دكو في لي تكتل با ما يمارو ولا نتلقو بخاري بخاري ومسلم عن معاذ رجليس معاذ قالت مني سألت الله إن عائشة رضي الله عنها أنك يا فقلت منكو ما بال الحائد لن يمبرك أمن برك تقديم في أسوم كور wala taqdi du fay asalaatu julli ci ñaari jaamu yàlla xaaral ne sut ne kaana nekkoon na yu si bu naa du ñu jot zalika loolu maa rasulillah na yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam fa tu'maru nu umaru ñu bi xadaay soomi ci fay koor wala nu umaru du ñu digal bi xadaay salaat ci fay julli ndeyaan su ne ko daal nii la ko yonent bi doon santaane jeex na suñu amee waan mbërëg yoroon def ñu wax koor gi fay leen ko waaye julli gi daaw ñu digal ñu fay ko jeex na kon mbir nii la ko yéen a santaane woon rek doy na pour ñu def ko même buñ xamut njariñ la wala sew-sew ba ci nekk moom nag borom téere bi mu tont lu ndey Aïcha te tontu wutoon ndax kat léegi-léegi ku njëkk ki desalal ku mujj ki ay mbir wala yëkkamatu lay atte fi zaare ci loolu muy ana salaat na julli te takarru dana baamu fil ci bis wala yële ak guddi xam sa maraatini juróomi yoon fay suq mu jëfe fay suqa mu jëfe alaa ci moom julli gi juróom yoon lay ñëw bis bu nekk kon buñ ne li nga ñàkk julli yëpp yow jigéen ji fay ko ndaw jigéen ñu jigéen ñuy bari bàkkaar daa am na jigéen ñoo xam ne julli juróomi rek balaa ñu ko julli xaw a dee boo leen naree fayloo nag fan yi gis régal yëpp mën naa métti si ñoom yàlla dafa bëri yërmande bi xilaaf fi sami wutee koor fay noo nekk moom laa yaati du dikk fi la ami ci at illaa maratan waaye tan lu may benn fan moo tax lim ñàkk xoot ñu fayloo ko or li muy baamu bëriwul julli li muy baamu dafa bëri pour noppal jigéen ñi ñeen ngeen bu ngeen amee régal li ngeen ñàkk julli baal nañ leen ko bu leen ko fay waaye li ngeen ñàkk war moom da ngeen ko da ko fay ndax woor li muy mu ci at mi bëriwut bu si topp alwatu mooy laal am sëy falaa juus da nga li rajuli ñeel góor ani jaamia mu joteeg soxnaam xata tatxara lu may mu laab min xaydiha ci mbërëgam aw nifaasiha wala gësinam jigéen ju amee mbërëg wala gësin li tegtali wane mooy la xaraam mooy sëy ak moom lu dul loolu dagan na waaye sëy moom moom xaraam la lu mooy ne nag jege fii fii taq gënut ndax dana jàngale moom feebar yi nga xam ni joteeg jigéen ji amee mbërëg wala gësin dana ko joxe yooyu affaire docteur la ñun xamuñ ci dara waaye moom dana wax war ne daal day joxe feebar kon sori barabu sobe bi moo gën waaye la xaraam daal mooy sëy ga wa xawmatu dalika xaraam ak loolu saabitun aji la bil ci alquran wa sunnati ak sunna wa ijmail ummati ak dëppoo xeet wi qaala wax na taala yàlla mu ko mi wasalunaka dañ la maxiidi ci mbërëg xul waxal foofu moom adan sobe su ànd ak lor la xam nga i day firi lor day firi baat bi wala ne ni sobe noonu lay loree fantasiru beru leen an nisaa jigéen maxiidi ci mbërëg wala fil di ca barab ba ñuy mbërëgee mooy awra ba wala taqrabuuna bu leen leen jege xataa na lu mooy ñu laab fa iza tataharna bu ñu laabee faatuuna na ngeen leen dikkee min xaysu amarakum fam leen digal ngeen moytu ko allahu yàlla kon la ñu yàlla moytuloo mooy barabu barab bi nga xam ni bu setee ci ngay àndeeg moom mooy awra نلانك يا الله يحب ذنبك التوابين ويتوبي ويحب ذنبك المتطهرين ويلا بك رواه نسلنا احمد اك مسلم هل النبي موسى صلى الله عليه وسلم قال وحنا لاصحابي نين صحابي هنا نزل بن هذه الايه بلا ايه يونتني اسنعوا دفلان كل شيء لب نك الا الجماع بم دسي بلا اجي واتي يونتني صحابي من غير سيخل سنجي امي ريغل ولا جسم لب ايه بم دسي وقد نصب الشافعي ngirëm saafi ala anna jimaal xaayidi ne joteeg ko amee mbërëg wanu fasaa ñu gësin ñi ñaamee gësin kabiratun bakkaar la mais ci bakkaar yu mag yi wa qaala woon annawi imaamu nawawi rahimahullah yàlla na ko yàlla yërëm la may taqada bu jàppoon muslimun julit xalla jimaal xaayidi daga nag euh, joteeg aji mbërëg wanu fasaa aji gësin fi farja ci awraam saara mujj na kaafiran di xéeféer murtadan boo xam ne murtal la bu jàppee ne joteeg jigéen ju amee mbërëg gësin dagan na sax kooku murtan la wala faalo bu ko defoon xëy moo taqmin te jàpput xillahu daganam naa seen benn muy aji fàtte aw jaahilan wala mu réere al xurmata xaraam ga aw wujudal xaydi wala mu xamul sax ne mbërëg maa ngi fa fala xurmata xaraamun wala kafaaratu du joxe dara dégg nga am na saaf yi nañu wax ne ku jotee jigéen ju amee mbërëg moom day joxe benn dinaar mooy kafaara ga ci wurus wala lu toll noonu ci xaalis waaye maalik mu amul kafaara bakkaar rek la wen faaloon na ko xam leen da aji tay aaliman da aji xam bir wa tahrim ak xaraam ga muxtaaran da aji moo ko tay def ko xam ne dafa xaraam xam ne mbërëg maa ngi ko faqad ba toggoon maasitan mooy yàlla gu mag a mag a def na bakkaar bu mag dégg aywa bismillah su wa kama takkoon comme ni mu nekkee aw xamatu xaraam ci góor takun da nekk alal maraati si jigéen ji inaax fan lim nëbbu naa lay si góor gi wujur a demee am deret ja aw radiet wala mu gërëm bil jimaa yi séegi du na mu xawamatin ci loolu muy defanteeg jëkkër ja wala mu takkum te nekkul mukkaatan di kuñ forcé jigéen ji bu jëkkëram bëggee jotee moom fekk dafa amee régal sax na bañ bu jëree mu jàppanteeg jëkkëram na ko def xam nga jigéen ñi am na si ñoo xam ne foog nañ lu neex seen jëkkër yi rek dagan na déedéet jigéen bu amee régal jëkkëram bëgg a jotee ak moom bu jëree mu xeex ak jëkkëram na xeex moom bu jëree mu daw génn kër gi dem na def mu mën a def waaye nag na muy mu di ko yombalal boppam ah bu ko jëkkëram forcé nag ëpp ko doole moom amul bakkaar waaye jëkkër ji su fekkee dafa am régal yi nëbb ko ba ànd su ko defee daal li xaraam mooy jigéen ji yombalal jëkkëram mu joteeg moom fekk dafa am régal wala mu nëbb sax dara ja dégg nga bànneexu bi maa doon far ji ci lu dul awra kooku moom borom xam-xam wute nañ diggante jimbax ba ci um bi daal maalik yi moom xaraamal nañ ko ndax maalik dafay daf lay lu jege lu xaraam la sax far ñeneen ñu li xaraam rek mooy awra ba comme nu ko xadis yi waxee lu dul awra nag na wax na na jumóoru fuqaa yi ñu ci borom xam-xam yi jawaaza zalik daga nag loolu wastadaro ñu tegtaloo bi xadisi anas bu maalik ci xadisi anas radiyallaahu anhu ko yàlla gërëm xaala mu inna al yahuda naka yahudi kaanu nekkoon nañ isa xaadat bu mbërëgee almaraatu jigéen lam yu akiluha duñ lekk ak moom wala ñu jaamiwaa duñ sey ak moom waxat saala laaj na asaabu rasulillahi saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wasallam fa anzala mu wàcc allah yàlla anzal na wajëla ta màgg na wa yasalunaka danañ la laaj anil maxidi ci mbërëg qul huwa azan ba hadis bi jeex yahudi yi ñoom buñ gisaan jigéen bu amee woon mbërëg duñ bokk ak moom lekk duñ wala ñu jaamiwaa duñ joteeg moom joteeg na moom dafa araam saxaaba yi laaj yonente bi ndax noonu la القرآن واجي فقال رسول يرنتي بوخ صلى الله عليه وسلم لا يجي لمن في رمو إسنام ودفلن كل شيء لنك إلا الجماعة من دسي كون لدو أورا برك دقنا لو مالي قنبر رواه صندوق أحمد المسلم وان مسروق بن أجدع رضي الله عنه قال من سألت الله إن عائشة رضي الله عنه ينوك يا لقرم ما لي رجل لن مو نيل غور من امرأتي سيجنم إذا كان لقنيك حايدا دا جنبرك قالت نيا صندوق كل شيء لب إلا الفرج من دس أوروبا awra bi nag li yonentu wax jotee bi moo ci aram maanaam li am solo mooy fii taq bum ko laal rawaa sunan al buxaari fi taarix yi loolu rek mooy wax ji wal muhimu la am solo an na rajulan na góor yan baxi dana jaadu ali ci moom an yatajannaba mu moytu mawaadi al aza barabu sobe yi falaa yaxumu bu mu wër xawla al ximaa ci lu wër kaaraanga kaaraanga mooy li jege sobe sax na moytu rek fii taq sobe ndax sobe soo di ko taq mën na ko jural leneen li kay laa yàqawoo ngir bu mu tàbbi fii ci moom kon bu mu jegee ba ëpp ndax bu jegee mën na ci tàbbi te it nit ñi yemuñ dafa am ñu mën a maîtriser bopp am ñoo xam ne mën ñoo maîtriser bopp ñu mën a maîtriser seen bopp nag kooku ni def li Maalik wax mooy tuji mbax ba ci ëm bi moo gën ci ñoom